المقامة التاسعة مقام جرم ينتل الإسكندرية كجد إسكندر الإسكندري لا أسكن المقام به قال الحارث بن همام حارث وعطنا ننا طحا تحادن بي اك من تحابك في الحسان قلب تروب تشعر او جاهلية تحادن بي اك مرح الشباب سجرين دو مرح موي اكون دانت تشاورت غوب نك داو لو ام كاتن توب سبان داو سوار موما يوبون وهو الاقتصاد اقصب فغو دغ فغو علال موما يوبون الى ان جبت با دغنا من جاب يجوب جاب موي دغنا جابت قفارا بعادا لا انس بها الى ان جبت با دغنا ما لا خا بين فرغانه من تي ديغنت فرغانه وغانا أك غانا دخنا ديجنت نيار دكي فرغانا جنا قبنا من جا أقصى المشرق جن جا سوري ريوي تانكو بجا غانا غانا غانمي بوكتي سو جانتا بوكتي أفري سو جانتي موي بلد بأقصى بلاد المغرب ريولو منك جن جا سوري تي سو aquudu maa ngi xuus alximaara lëggéex aquudu maa ngi xuus alximaara lëggéex alxamratu mooy lëggal xamratul maa lëggum ndox ndox mu bëri ci dex gi wala ci géej gi baat bi foofu la cosaanam maa ngi xuus ci biir lëggi ndox yi loolu mooy maa ngi jànkuwante gi jafe-jafe rek aquudu maa ngi xuus alximaara lëggéex li ajliya ngir naa witt asimaara meññet ya wa axtaxima maa ngi sataxlu al axtaara mbambu yi iqtixaam da koy jàng lu bari fala axtaxama al aqaba waaye baat bi ni ci daan waxee al xosma mooy ab tartar jafe-jafe nga force rek dugg ci biir génnaat والموت اقتهام سبعه لدوه سنبير موت هو اقتحم ما لكي ادرك انجر ناجت الاوطار حاجيا الاوطار موي جمع وطر فلما قضى زيد منها وطرا وطر موي حاجة وكنت لقفت capté woon naa min afwaahil ulamaa yi ci gémmiñi borom xam-xam yi luñ la sànni nga capté ko mooy nga jàpp ko jàpp woon naa min afwaahil ulamaa wa saqistu maa jot min wasaayal xokama ci dénkaane yi borom xam borom xikma am xikma جلي ونا كيسين دينكاني أنه نقول إندر تيمير ما يلزم دنوار يلزم دنوار الأديبة الأريبة أديب بوخمني أريب لك وقلولا ورمت مهم إذا دخل بدوكي البلد الريو الغريب بأجي تبرانك مهم كي مو تبرانك تريوما كون بجلي غربة أخكنا كريوما ملغي كريوما لورو مجازا إذا دخل بدوكي البلد الغريب li mu war a njëkk def an yastamila mooy mu sàkkoo jàngal qaadiyahu attekatam ba am réew boo fa demee nekk fa xarib amoo fay mbokk ah lala njëkk rek lala njëkk war mooy fexe ba jokkoo kilifa ya ñoo yor wàllu ba amante ak ñoom mooy tax kenn du la mën a noggutu kenn du la mën a yàpp tooñ la ngir yow fi mbokk أن يستمر النساء كو وقاضيه قاضيه ويستعلج موسى ومراضيه أي جرمه ليشتد جرم دجر ظهره ظهره جناه ليشتد نتاسم ليشتد جرنا طار ندجر ظهره جناه عند القسام فقلوبه ويأمن مول في الغربة كتمران كذا jawral hokkaami janngo ko way atteya eh, ngir na wóolu ba kenn du jeng dem attekat ba di atte lu dul dëgg ci kawam ngir ab xarit la loolu laa jële woon ci dénkaanay xokkamaaw yi ak ci gémmiñi borom xam-xam yi fattaxastu ma jàpp haada adaba adab ma def ko muy imaaman muy njiit wa ma def ko zimaaman muy li masalixi ñal sama maslaha fu ma dem rek yema joko jokkoog ñu fay roolaat wat motax fama maa daqaltu duguma madina madinatan dëkk wala warajtu tabiwuma arina ab gol muy dëkkuwaayu gaynde baytul asad alla bi gayli bi dëkk moo ñu tuddee xarin duguma ci dëkk illa wamtazajtu lu dul bu bi hatimati atikatamba intizajal ma'i jaxasoog ndox bir raaxi ci nollu sàngara comme sàngara njarak ndox ba noppi rek ni ngi ndox mi nee na bu ma demee ci dëkk noonu laay jaxasoog attikat ba wa taqawaytu ma dëgërlu bi inaaya bi ci ak jagleen taqawiyal ajzaadi kenn dëgërlu yaram ya bir arwaax ci ni ruuxu ràbbalantoog aw yaram ba di ko dundal noonu lay def ak attikat ya صدق بما دق فبينما أنا دقين دبنا خلينا من عند حاكم الإسكندرية ما غفا أبي كتب إسكندرية إسكندرية كم نفرة أه بين قسم منك أبي كتب في عشية تبن غون عرية بطر أبسد وقد أحضر أمير ممتاولنا مال الصدقات على لي الزكاة صدقات مهي صراحة وايتي شريعه shareeca في القران لا alquran léeg-léeg dañuy jëfandikoo yàlla day jëfandikoo lu صدقه baat sadaqa jublu ci للفقراء والمساكين إلى آخر الآية لولو أسف لك جلو خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها كذلك لولو أسف لا تيولنا على الأزكاة ليفضه بجرد نقر تك تكارك على ذي الفاقات كبرم نكيه كيفتي مبكر رك دخل الدقو شيخ أمك بنت أتك بيتيه وحسين كدل أزكيه لأن لا أمك دقو مك مواخنة عفرية جملة تعطلوه تعطلوه دنكو ديري امرأة جيان جا خمنا مصبية أجي جبط الله aji njaboot la borom njaboot la yoo xam ne zaatu sibya borom ay doom la borom ay xale la sibya mooy jamu sabi benn jigéen mooy gëri mag mi di ko indi ci attikat bi jigéen joo xam ne musbiyatun borom njaboot la fa qaalat mu wax moom soxna sa mu ne ay yada yàlla na dëgëral allahu alqaadi yàlla na yàlla dëgëral alqaadiya attekat bi wa adaama ten saxal bi i ci moom attaraadiya inni imraatun man ak jigéen min akrami jursuuma bokk ci gën gaa teddi cosaan uruma wa atxari uruma bokk ci laabi ay reen maa ngi bokk ci askan woo xam ne cosaan lañ laab cosaan ñu laab ay reen ay cosaan wa ashrafi quula ñi gën a tedd ci ay nijaay wa umuma ak ci bay tax ñii tamit sama mandarga assawnu mooy ñoŋ wa chimati sama jikko alxawnu mooy ak jàppande ak yomb wa xuluqu yi sama jikko neex ma amul morom alawnu mooy ndimbal man daal ci askan bu baax laa bokk sama mandarga li ma ñëpp xamee mooy assawnu ñoŋ ku fegu la bokk na ci sama jikko yi ma aadoo alxawnu mooy jàppandi wa xuluqi sama jikko alxawnu mooy dimbale ñaax ma amul morom wa bay nii nekk na sama diggante wa bay na jaaraat yi ak diggante samay dëkkandoo yu jigéen jaaratun jaaraat dawnun ak sore waaw dana ko bul ma xoolee comme jigéeni tey man sore na maa ñoom lool wa kaana nekkoon na abi sama baay ida xatabani bu ma labatee bunaatul majdi doomi tedd wa arbaabul jaddi boroomi muur sakkatahum mu noppi looleen sakkatahum mu noppi looleen wa bakkatahum mu toroxal leen maanaam da leen di laaj loo xam ne duñ ko mën a matal ñu rus torox tabkiit sakkatahum mu noppi looleen mu da leen di wax wax joo xam duñ ko mën a tontu wa bakkatahum mu toroxal leen ci kaw ay lay ci kaw wax yoo xam ne duñ ko mën a charte yoo xam ne duñ ko mën a matal wa aafa mu sib wuslatahum seenu jokk wasilatahum ak seen may siba jokkoog ñoom lañ indaale ci may bëgg ma koo takkee mu sib ko delloo leen ko waxtajja mu lay an bi àndoo naka moom xaaxada kullurant naag allah taala allah تعالى دا كل رمضة يالا دي حنيفي تنجنم آه، أم كني لا يظهر دكرو أنتك غير ذي حرفة كل البرم نج ممكن مويل مدال دا كل رمضة يالا ندو ما يدوم كو أمو نج كو أمو نج دكو ما يدوم رضاه من يوحتج مولاي مو إن حجة بأنه عاهد كل رمضة الله يالله تعالى كينا بحلفة جنجن أن لا يكاهر مبنى قروان تك خير بحفة كل قرم ميت فقيب دغلنا القدر أبتل يالله دغل بيالله لنصبي نيال سمبتونا ووصبي أكسم السيبر أن حضرت والهذا القدعة وركب بي تاجي تاو مبالغ الله haadaagi ismushaarka rag qasab baa qofla ninkay wàññi bu baax a baax góorka muy jëri di ko war di indi lay wax nee na yàlla dogal sama coono ak samay jafe-jafe ba mel ne bu wéradi naadiya abi pencum sama baay fa aqsama mu gëñ fa aqsama mu gëñ bay rax ki diggante kuréelam annahu naka moom wafqu charte yi aji dëppoo ne moom borom métier la matoon charte yi kon métier mooy day tëgg wurus waddaa mu woote annahu taala ma nazama yàgg naa nas durratun wurusu durru ila durratin ci beneen wurusu durru wa baaxahuma mu jaay leen ñoom ñaar bi badratin fukki junni mu jaay ana faxtara faxtara waru abi sama baay bi zahrafati muxaalihi ci taaral gim mu faral ay naram mu xal moy lu jombo wax lu jombo moy fan euh ni mu taaralee waxam dal nee ci la sama bay waro gëm ko zahrafa bu ñu waxee zaxrafa albatila mooy xassanahu taaral na ko wa zayyanahu am nga zahraf zahraf moy wuruf lo xamne da kaw ga lañ taralé wuruf niñ rafetale waxam ji ba mel ni wurus ci la sama baay waru wa zawwajanihi mu dencal ma ko qabla ictibaari xaalihi qabla ictibaari xaalihi njëkk muy napp mbiram njëkk muy natt ba xam ci li mu wax dëgg la wala du dëgg daa gëm wax ja rek ngir na wax ja taaro daal di ma koy may ixtibaar ci Laurent bi mooy ay convo convo yi ñu def ci école yi bokkewul ak imtixaan imtixaan mooy magam mooy convo bi ngay def ngir wut ab diplôme nga xam boo ci amee dañu am diplôme sangam bokkul ak sax xibaar moom nga xam dañ lay natt rek ba xam li nga jàng noo ci mag bokkewuñu ba tey musaabax musaabaxa mooy ab rawante concours waaw mais bu dee imtixaan la wala ixtibaar la moom foyer ya nga am rek dañ la koy jox ba mat waaw ne genn wàll gi jëm kaw mooy at mi nga bu fekkee musaabaxa nag moom ci misaal daa am nangami nit ñuñ soxla bu ko téeméer nit doon defit te juróom lañ soxla juróom rek lañ ci tànn ñi ci des mën naa am tontu nañ ca waaye ñii ñu leen gën a baax da teew lañu ñàkk kon nga xam ne baat yooyu muy ixtibaar imtixaan musaabaxa وزوجني قبل اعتبار حالي فلما استعرجني بمجني من كناتي تكيتي سمبني بمجلي سنكر جني ماشي سمبني ورحلني ملعصل مع عن أناسي ولسه مولد بمجلي كسماء بكو ونقلني مو تعلم إلى كحره جنك والو نيغم dañuy wax kasru di wax kisru mooy wàllu néeg ba ma yóbboo këram wa mu amal ma taxta asrihi ci ak njàppeelam maanaam man ci ak kilifteefam mu yilif man wajattuhu fekk naa ko qoxadatan qoxadatan muy ab toogaa kon foxalatun maanaam la josalatan di ab boofaakoon tëdd toog rek liggéeyu dara waal fay too ma fekk ko boo jaaxaatan mi ngi noon tëddaa kon nuwoomatan ab nelawaa kon tëdd ak nelaw rek toog la fa nekke wa kuntu saxibtu wa kuntu nekkoon naa saxibtuhu di ànd ak moom wa kuntu nekkoon naa saxibtuhu di ànd ak moom di riyaasin ci waajtaay wu mat ngir yu cher laa amoon wa ziyin ak taar wa asaasin ak ay meuble wa riyin ak màndal maanaam damaa wooma doon am lu ne fama barexa dañut yabiu di ko jaay la ma amoon léegi muy jaay sama bagage yi di ko dunde moo tax ma dañul di ko jaay fii suuqil hadmi ci martab gote maanaam da koy jaay xat man mooy da koy jaay ci wanta wa yutlifu muy sànq samano woo njëgg fil xadmi wa yutlifu dana sànq wa yutlifu dana sànq samano ak njëgam fil xadmi ca ŋàmpu ga wal xadmi ak ngëriñ ga mooy di lekk sax sa gémmiñ ba mu قدم بالقاف موي لكي اصل كاتب دانيول دالدي سانك نديك ديكو لكي نانكو نيخا الى ان مزق بقوتي تنا مالي سما علل دي اسري مولن وان فخم مو ديبازي مالا nga xamne li ñelon na ma fi عذري ci ñakam lama amul yep mu ديبازي ko ci ñàkkam wala bu njëkk ba mooy maal alal ci daal ma fexe ba xotte na maal yi sama alal bi asri mboole seen wa an faxa mu dépassé maal la nga xam ne lii ñeel na ma fi usri falamma amsaani bi ma fàttalooye taxma raaxati cafka noflaay wa xaadara mu mujjal bayti sama néeg am xaa mu gën a sab ne na raaxati ci tànk sama néeg dara nekkutu fa jaay na lépp qultu loo laa ko laa ko wax ne ko waaw yaa haada يوكي إنه نقل إندر تندر لا مع بعدير نبو بعد بؤس غناو وانش غناو بو جافا جان وي جيغي دا نك لغي نبو من لا ام جانغور جي اپنا فاو وير قرأت رك مو ولا عطر ديت گت بعد عروس جناو عروس لولو مثل جيجين جو خمنا برم كرم موطلون عروس صح dañu benn waaye denc ko ku salte ko xasaw gémmiñ ba noppi waaja di digal mu laal xeeti parfum yeeg gëtt yi soxna si ne ko laa atra baax da xarus gannaaw ba xarus daal gisatuma góor gu jaral di lal gëtt fan xat dugal li iktisaabi fan xat buuram li iktisaabi ngir fàggu bi sinaatika ci sa mécc ma aj ni nii wittal ma samarata baraatika meññatal sag raw mecc ma nga foor ba raw ja wital ma meññat na fa zaama mu ne yey am na sinaatoo meccin ma xat rumiyat sànneef na ko bil kasaadi cig lambo limaa ngir la nga xam ne waxara feeñ na fil ardi ci suuf minal fasaadi ci yàqu mu ne mecc ma daal daal lambu jamono yàqu wali ñel na ma min hu ci moom sulaalatun ngirte maanaam doom am naa ci moom doom ka annahu daa mel ni moom xilaala bantu sakk na bu kaay la li gënim sawe wakilaana ku mu ci sama doom maa yenaalu du am soba ak reg maa woo ànd ak moom rek ba reg sax mënu duñ am wala tarqaw euh, wala tarxaw du dal loo ñel ko damaatun rongañ mi na tawaa ngir xiif jamono jëne ñu ngi jooy ngir xiif léegi nag mu ne atkat bi waxat moo tax wommat naa ko ilayka jëm ci yow wa axtartu teewal naa ko la dayka fi yow li taxjuma ngir nga nattu xuuda daawaahu bantab wooteem bi ngir nga seet lim wax ba am dëgg la wa tax ku ma nga atte bay naa suñu diggante bimaa ci la nga xam ne araaka wan na la ko allahu yàlla fa aqbala jublu alqaadi alayhi ci moom wa qaala loo قال لي جملة وعلي تقول جنك قد وعيت وطنا خصف عرفك انجانجة وصف مسي لم وحد جناك فبرهن عند الله الآن ليجي عن نفسك لا يرى وإلا بوقت كشفت مويني عن نفسك والاستدلمت وأمرت مديك بحبسك ستج فأطرق فأطرق مسج النطح كسنجين mooy ku sëggal boppam di xool ci suuf noppi waxul dara itraaxal ofuwaan euh, kenn sëggug jaani ñàngoor moom la ñu am nañu am nañu euh, moom la jigéen le ofuwaan avant yi moom mooy jamu bi summa shammara topp mu wagu lil xar bi jëm ca al awaani bay ab subbaakoon al xarbul awaan والحرب التي قبلها حرب ويخيه قرب جيح بالنبي ينبي الرأي متكا كما سوى كجور مو يغنى ميت لأ بيزا كنت يصم من كم كجم تقرب منون وقال منه اسمع عبدك الحديث سما وحسان فإنه نك مم عجب كنتان يضحك ديف مرة من شرحي كشرام وينتحب ديفنا كجوي كنت يمنه دي أنا من امر اختم ذا ليس في قصائفي أملت أي ججل عيب أي ورمي جل لا يوم البنيب ولا في فقاري نقول سن دمم ريب سكسك ريب أي سكسك ريب من جمع ريب من سروج سروج دائم وسمكر سما الله في كر دا ولدت جريح نما بها والاصل سمكر كسان يغفل غسان ci لا بكر يتمجير حين أنتخب وقت وما أسكنه وشغلي سما لجي ما والتبحر في العلم كقمقم تلابي ما لي الطلب ورأس مالي سحر الكلام موي جبر سحر الكلام الشعر وي وعين وفور وفصاحة ba jëf lo nit lu mu melni dañ ko njabar mo tax mu ne alladi ba nga yu saaqu def na tëgg minu ci moom alxaridu way wal qutbi ak qutba ay xutba yene aghusu dana khus fi lujjatil bayan ci lëggum bayan fa aqtar dana danaa tànn àll aali wërsu lu min haa mom wa antaqib te ko tan dana bayan fa fasaa bu ak géej la damay dugg ci bir di tan wërsu lulu ya wa ajtani damay wut اليانع أدي يرحم الجنية لا أدي بيس أجنر من القول جواح وغيري كل من يحفظ البيت عن للغد يلبن أنا بما وحي سما وحي من يرحم لدن وهي كان بوحي دائما أي برد وآخذ بنا جافو الله الضباب فضة ميقاله فإذا ما سحته بمقتجي قيل وعزنا إنه ذهب دنا فك بات ميقاله بمقتجي رمت من الليل وخالص وهي ورسله وكنت نكون من قبل تبون جك أمطري بفجو نصبا على الزبير بالأدب كأدب المقتنع بدبون كملو وأح طلب دنا رب كأدب لا دان رب أم لا دان فجو على ويم تتي دانور أحمسي سما فلتانك لحرمتي جروار ما أدب مراتبا أي درجة وقمنا ليس فوقها نيكو سخين rutabun ay daraja waaw maanaam dama daan yëkkati ko ci di war di war daraja yu kawe eh, di dëgg dama daan dëgg ak yi sama xolu tànk mooy sama ndëggul tànk baatinul xadam moom laa daan dëggee ci kaw daraja yu kawe wa taalama zufat yàgg nañoo jébbal asalaatu mayya ila rab yi jëm sama kër falam arda gërëmuma kulla man képp koo xam ne yahabu dana maye ñëpp daan ñëw sama kër di ma may di ma jox waaye daaw ma nangu may yëpp sax loolu nag ay jamono loon waaye fal yow ma tey man képp koo xam ne yaxalox dana aju ar rajaaw yaakaar ga bii ci moom euh, képp koo xam ne ak yaakaaram mi ko aj ci adab na xam ne aksalu shay'in gën gaa lam di dara fii suuqi yi ci marché al adab mooy ilmul adab yi lamb bëri na waaye nee li gën a lamb tey mooy xam-xam laa ardu abnaihi déet deru ay doomam yusaanu di ñoŋale ko waaw maanaam ñi liggéey di ki ko tàkku ak di ko xamle eh, seen der lu ko yàq day yomb lool kenn du ñoŋal seenub der wala yor xamu déewul foog lu fiin ci ñoom illun ak kóllëre wala nasab du càggine askan kenn du jéem a kóllërante ak ñoom kenn du bëgg a bokk ak ñoom ci askan illu mooy ak eh, kóllëre la amruka inna illaka min qurayshin كإلي تقضي من رأل النعام تقول يا أيوب أتخنا سبب شكرا جتبوكوش كانوا دائما لهم في عراسهم كسن دينغريكر كسن أتيا دائما لجيفون أي ند جمع جيفا جيفون أي ند لن ند يوم عبد دفنا صري من نطنها سقينا غاوي تنبو دفنا بطير فحارة قلمنا اللبي سنقل لما نجر لنا قمنا مونيتو نطفنا بيه كما من الليالي تقول وصرفها صبك قدي عجب كنت الله أين أجنان قلنا خمة مفهوم جمع نمائدة وضاق قطنا ذرعي سما قل لديقي ذات يدي انجر سما ورسد وصاورتني جامكو أنت نغمم الهموم يتي والقرب أنجاق ريه وقادني ومطنا مدحري سما جمعنا المليم باجي بكيلنكو يده إلى سلوك ما جمت سوب لو خنة يستشينه دنوكو نعولو الحسب غر جمعنا يبين مدال ما يجف لو خنة صح كو أم غر ورغو دف صبعت يب حتى لم يبقى دا دسل لي نيل ما برا دما جاي بدسيتما تس ولا بطاط مجاجنا درا ان خلق لو خم دنا ولبتكو إليه جم كموم بطاط موي أي بغاس نغرة أمنا أمول صلى الله يومنا نعكلا لا الشرح بي حتى لم يبقى لي سبد أنا في نسخة من جاز حتى لم يبقى لي لبد مأخوذ من قولهم ما له سبد ولا لبد أي شعر كور ولا صوف بتاجنا كور صوف والمراد ضوات الشعر والصوف من المواشي غير جري أمد جدرة بي أم الشعر كورد أم بي أم صوف جنة وأراد به هنا يمكن أنه لم يبق له كثير ولا قليل آه، بري دهيت من اللنيو كناية عن شدة الفقر والحاجة قال شعر أفنى الزمان أفنى الزمان حلوباتي وما جمعت كفايا من صبد الأيام واللبد واللبد أصنع جعلنا الزمان جمنا ومجاز حلوبات سمي جلين رك وما أعلم قمنا جمع أجل ونقو كفاء سمى ناري تنخ من زب من صبد الأيام واللبد تي جري سمي جري أم شعرك ورأي أم صوف يبدا من جعلنا قل لولي جمتي فبعت حتى لم يبقى لي صبد ولا بطات إليه أم قلب waddantu ma lepp xata asxaltu ba diisal naa saalifati sama gannaaw lepp naa ba sama wetuk doq safaatul onuq diis na ak i bor bi xam ne day nañ ci yenu bor boo xam ne min duune yees na ko alxata bu xal ko waaw bi bor yi bëree su ma tawaytu topp ma lem alxasa baljabi ala saxobin ci xiif ممن قيف بقيف بمن بقيف قمصا جرومها فلما أمضني بمم متتلي أصغب قيف لم أرى جسما إلا جهازها لول أي جمت كايم أي بغاسا من صحنزي كجتما دررك وخمي من ناتي بنقول لول بغاسا أحرضا في ألل جسما جن ألل جن نفنجتم أدنى جو من كفنكو إلا جهازها أدور معي وندير في بيعي تجان وأضطرب معي بجبجي مجل بغاتي دي وندير دي بجاي نجاي مكو نكتا فجلت ما وندير فيه والنصر طبقا بصح كارهة أجي سبل لمي دخ مو يجاي بغاتي والعين بدي عبر أجر وغلا معي جوي أه، والقلب قلبي مكتئب أجي جعقرة تدمو كي جايت وما تجاوزت جيجي وما إذ بنا قمين عرص يقنا به في بغاتهم jéggiwuma xadd tara bi daytalu gërëmante dama ko tàggu laaj ko ba mu jox ma ci ndigal kon jalgatuwuma ci kawam fa yaxdu ba muy xofu alxada bu mer ma fa in yakun bu nekkee xaadaha di ko naqari waaw mën nañu foofu wa qaal wa qaala mu wax اسمع حديثي فإنه عجب يضحك من شرحه وينتحب أنا امرؤ ليس في قصائصه عيب ولا في فقاره ريب من اسمع دقل اسمع دقل حديثي سما وقتان فإنه نكمم وقتان عجب كمتان له nekkul lu yéene sax waaye jëmmi kéemtaan la yudxaku def na ree wa yuntaxabu def na jooy intixaab mooy jooy yu ànd ak kàddu yëkkati sa kàddu di jooy eh, min charxihi ci ak charab mu ne attikat bi déggal li may wax lu yéeme la luy reetaan loo di loo ana man imru'un askam laa laysa fi qasaa'isihi nekkul ci ay jagleem aybun ayib wala fi faqaarihi du càggine ci ndamam réebun ay sikk mu ne ko man nit la koo xam ne ku am ay jagle laa jagle yu mucc ayib ma ma ndamoo loo xam ne benn sikk sakk amu riyab mooy jamcu riba ay sikk sàkk saruuju yi mooy sama kër allati kër tu nga xam na ma biha ca moom wal aslu li mooy xosaan xiina antasibu waxtu wa may askanu nee na sama kër mooy saruuj saruuj laa dëkk daar biha ad mu annas la mi bokk ci tur yi yi di jigéenal doonte amul mandragam ta'nis lu dul boo ko tasxiroon daarun nga ne duwayratun wala naarun nuwayratun ca la taa door a feeñ nee na man taruj mooy sama dëkk falaa juddoo sama cosaan maa ngi bokk ci giir gu tudd xasaan waaw bu fekkoon ne lii mooy li ndamoo nag lii moom lu jara ndamoo amul muy dëkkuwaayam ak askanam wa shughliya sama liggéey ab darsu mooy jàng wa tabaxuru géeju fil ilmi ci xam-xam mooy sama càkkutéef wa xabaza baax ma lii ab talabu sàkku gi na sama liggéey mooy jàng jàngale euh, géeju ci xam-xam xam-xam bu rëy moom te càkkutéef bu am solo la xabaza baax na lii xabbala ñu tarkiib ko ak za muy xabba za yor maanaam neema di jëf-jëfu neema safaan bi bu fekkoon da ngaa jubloo ŋàññi dañ koy indi laax ne laa xabaza na ko ibnu malik waxee wa in turid damman fa qul laa xabaza bu boobaa mu yor maanaam bisa wa rasu maali sama capital sixrul kalaam mooy njabarug wax wax ju fasaaxa ba koo waxal mu def lam ko wax mel ni danga koo njama nee na loolu mooy sama alal mooy sama capital alladi wax da nga xam ne yusaaxu def na tëgg minhu ci moom alqaridu way والقطب أتي قطبة وحج فساعة nga di ci tëgg ay waaye ja xutba nee na mooy sama capital axuusu danaa xuus fii lujjatil bayaani ci lëggum bayaan lujja lujjatul ma wala lujjatu shay mooy mocdamahu mocdamuhu mbir ma fa mu bëree ndox mi la di ko jamu lujaj nee bayaan te mooy wax ju fasaaxa ju sadd mucc ayib damay xuus ci biir fa axtaaru may tànn alla ali wursu lulu minha ci moom wa antaqibu may tànn nee na damay xuus ci biir lëggum bayaan di tànn waxin ya gën a yéene ci xutba yi ak ci way fa axtaaru may tànn alla ali du yépp laa jël waaye baat ya taaru ba mel ni wursu lulu Ah, ibaara waxin yataaru ba mel ni luulu ñoom lay tànn te bu ma ko tànnee ba noppi dama koy seggat seet yi ci gën a yéeme mooy intiqaab intiqaab mooy baat bi ñuy jëfandikoo ci ay élection tànn ñu ñuy fal wa ajtani danaa wit alyaani aji ñor aljaniya aji bees ak ñor waaw maanaam min al qawli ci wax wa xayri ku dul man nag yaxtatibu day taxaan rek lil xuudi ñeel bant ba nee na sama wax daal day mel ni garab gi meññ ñor ñor gu bees ma witt ko noonu la sama wax di foore keneen ku dul man nag bu waxee day mel ni matt ma bant yu wow ya moom la dajale day taxaan rek ixtitaab wa aaxudu danaa jàpp allafza baat fiddatan fekk muy xaalis فإذا ما سعته بمكو تجي قيل وعدنا إنه نكم دي ذهاب ورسلا أخذ يأخذ أخذ أخذ مي بايكو فوف لأن دمائي فك بات مطار من نقارس وعي بمكو تجي بنطي صار بدا يوكم مجنران لي ورسلا وكنت نكون من قبل تبو am tari di faggu nachaban alal alal ju bees nachab mooy alal joo faggu yoo xam ne donnoo ko maa ngi daan faggu alal bil adabi ci adab al muqtana ba di buñ wa ahtalibu maa ngi rat euh, rat da ko di wut rek li muy faggu di ko wut nee na ci xam-xamu adab daal laa daan wutee alal wa yamtati dana war axma fii sama xol tànk sama ndëggul tànk li ci digg bi mel ni lu xaw a xóot euh, daana war li xormati yi ngir war maay adab maratiban ay daraja ay maratib yoo xam ne laysa fawqaha nekkul ca seen kaw rutabun yeneen daraja maratib mooy jamu martaba rutab mooy jamu rutba rutba waaw kay kon nee na sama tànk daana yëkkatiku di war maratiban daraja yoo xam ne lay sa fawqaa rutabu wa taalama zuffat yàgg na buñ jébbalee assilaatu mayya ila ram ay jëm sama kër nit yàgg naa yenu ay mayam di ma indil sama kër falam arda te gërëmuma kulla man képp koo xam ne yahabu day maye du càggi ne way maye yépp laa daan nangu seen may ngir booba dama dañ ma daan jox lu bari ba daaw ma jël sax lépp wa talama zufat euh, zufat ni bàyyee ko ci zifaaf waaw kay comme ab seet nañ koy jébbalee mu sëy loolu la ñuy tuddee zifaaf waaye yàgg nañoo yenu ay may dama ko indil mu mel ni seet bu ñuy yóbbu ci kër borom këram walam arda gërëmuma kulla man yahabu fal yow ma tay nag waaw loolu démbule woon wa kuntu min qablu waaye fal yow ma tay man képp koo xam ne yaxlaqu dana aju arrajaawu yaakaar ga bihi ci moom tay day nee na ku ak yaakaaram ci adab na xam ne aksadu shay'in gën gaa lambi dara fii suuqihi ci marteen al adabu mooy adab nee na lamb ci jamono bari na waaye li ci gën a lamb mooy xam adab moo tax ku ci ak sax yaakaar tay rek day yaa ngi ko lu lambo wax na dëgg ak yaakaar ci yàlla lañ ko war a aj laa arbu abnaihi déet ay doomam yu saanu di ñoŋale ko saana na yasuunu mu tëgg ko lil maful mabni lil majhul yu saanu nee na yëngu ci xam-xamu adab di jàng ka jàngale yéemu ñi sax ci kenn dootu leen jariñ waaye seenu der moo dul ñoŋati dañuy yàq seen der wala yor xamu deful fooglu fiihim ci ñoom illun kóllëre wala nasabu tu caagin askan kenn du jéem a kóllëranteeg ñoom kenn du jéem a bokkoog ñoom ci wàllu askan illu mooy sa dëkkandoo bi nga xam ne da ngeen a seq jàmm euh, wala sa mbokk nga xam ne da seq jàmm kon dëkkandoo bi nga miinanteel nga seq ak moom jàmm wala sa mbokk ci askan ngeen seq jàmm loolu mooy illu ñu firee ko kóllëre wala na sa bi caagin askan euh, ñi nga xam ne ñoo yëngu ci adam ne nag kenn du bëgg a mbokkook ñoom kenn du bëgg a dëkkook ñoom di seq ak ñoom dara ñoom daal euh, baat bi am na benn saar inna busra bi la amruka inna illaka min qurayshin ka illi saqdi min ra'lin naani la amruka maa ngi gën ci sa dund la ay xasami da doon dàq nit ci askanam ne ko yow day sa jege ñaale kóllëre gi ngay ne yaa ngi am ci Quraysh daa mel ni jege ñaale saq bu mooy doomi gilem min ra'lin naani ci cuujub baax tax ku ne xam ne ne ak baa mi nga xam ne ci borom donk yi la bokk bokkuñu dara ñi yëngu ci adab ka annahum daa mel ni ñoom fii iraasihim ci seen ëtti dañoo mel ni jeefun ay medd dañoo mel ni jeefun muy jamu jifa yub adu def na sori wayu tanam def na watndiku min natniha ci ak xeeñam dañoo mel ni medd ñu tudd leen nee na faxaara gëlëm na lubbi sama xel lima ngir la nga ne mu na toof na ma bii ci moom mi na layaali ci guddi wa sarfuha soppeeku guddi ajabun kéemtaan la nee na tey nag comme yëf sama xel gëlëm na euh, ngir ni guddi soppeekoo ak natt yi ci jëlee wa daaqa xat na dar'i sama xol لضيق بات يدي غرقتك سما ورثت سما قل قدنا غير سما ورثت وقد ذات اليد تركيب ناري باري تركيب إضافي معمم ورثت لير علل وساورتني جانكو أنتين من الهموم يتي والقرب أجن جاقري الهموم موي جمع هم موي يتجو دار نتي تي ري تي موم لول مانوكو بانا فات واي لوط نجا خمول تاع بومي جار با فات لا رب دي هم اه، موم لاني جمع هموم والقرب از نجاقره قرب باتاي موي جمع قربه وقادني ومتنما قادني ومتنما bokkul ak qaada li fulaan mooy wamatal na diw wala qaada li wamat na jëmee ci man qaada ni wamat na ma dahriya sama jamono al mulimu kay aji dikkee luñ koy weddee ki nga xam ne day def lu jar ñu yedd ko ila suluki ma jëm ci soobu loo xam ne yastashinuhu dana ko ñaawlu alxasabu ngor nee na jamonoog ay jafe-jafeem taxna ma ngi soobu ci mbir moo xam ne ku am ngor dana ko ñaawlu du ko def loolu mooy lan fa bextu jaay naa jaay naa sama jumtukaay yépp xatta lam yabqa ba des ba desul lii ñeel ma sawadun sabadun kawar dama jaaye jaay ba kawar sax deseetuma ko lépp lu ma amoon jaay naa ko arab wax ne diw day maa lahu sabadun wala labat maa lahu sabadun wala labat maanaam deseetul dara jeexal na mooy kawar euh, labat mooy suuf mooy kawar gu nooy gi nekk yenn xayawaan yi waaw jaay naa ba jeexal euh, wala bataatun du caagee ne tus dara am xalibu loo xam ne danaa wëlbatiku ilayhi jëm ci moom deseetuma dara waddantu leb xatta asqaltu ba diisal naa saalifati sama wetu doq bi xamli daynin ci yenu bor boo xam ne min dunihi yées na ko al atabu alkade mene bi ma jeexalee ma commencé di leb di leb ba sama gannaaw diisa ki bor bor yu bari ak alkade dong a ci topp ثم طويت طب ملم الحشا بلجدي بوتيدي على صعد تقيف آه، نتلو حال بي لي ما كوماسي دي مون جنا بو جاي با دي علاي بازاج لب بديس ما كوماسي دي مون دي قيف قمتن جرومي فات يعني قمت الليال جرومي غدي آه، بودون ايام كون داكاي جيغينا خمسه ايام لاي واخ خمسة تنكن واي كم ليال خمسة جروم قم نتبون تبع عدد بوكم هذا خلاصة بابن يدم تسعة لغي لم بودي غور بودي مذكر لا دنگي جيجين البات اللم بي مؤنف نغ تذكير بات اللم بي حمقك سبع ليال وثمانية أيان حكومة ليال موي جمع ليلة مؤنث لا سبع ليال ثمانية أيام من أيام جمع يوم مذكر لا ثمانية دكوي تأنيس كون قمت جرومي قدي فلما أمضني بما متتلي بلقما الصعب قيفي لم أرى جسما إلا جهازها لدل أي جمتكا أي بغاثا عرضا ميلون من أجارة الانجر جائفة ne bi ma xiif bi métti lay juróomi fan nag ama ba mooy lakk na ma mi daf ma méttital ba mel ni lu may lakk lam ara gisuma illa jihazaha jihaz mooy bagage yi nekk wat na bagage jigéen ok moom rek laa gis ajulu maa ngi wëndeelu fii bay ay ci ak jaayam wa ab taribu maa ngi baj baji gisuma lu dul bagage ndaw si aradan muy luñ mën a gaaral ngir jaay ko muy loo xam ne mën nga caa jëlee alal arab mooy lépp loo xam ne rek man mën nga caa jëlee dara lu bari wala lu néew ajulu maa ngi wëndeelu fii bayo yi ci ak jaayam wa attaribu maa ngi baj baji fa jultu ma wëndeelu ajulu fi'lun mudaari' la maadi bi la indi fii jaala yajuulu jultu fa jultu ma wëndeelu fii ci jaay bagaasami wa nafsu tamit moom bakkan bi kaarihatun aji sibla bakkan bi ku sib la li aynu bët bi abra aji rongañu la wal qalbu xol bi muktaibu aji jàqa la bi muktaibu aji jàqa la wa maa tajaawastu te ma is ba nga xamee ne abastu maa ngay yàq bii ca jumtukaay ne jéggiwuma bi daytalu gërëmante maanaam waxtaan naa ca ak moom fa yaxdusa ba muy sosu alxadabu mer kon mer gi mënoon naa ñàkk jërtoon muy sosu jéggiwuma xadda taraadi fa sabab soosu yaxdusa muy sosu muy fiil mudaaru mansub bi an mutmaratan bada faa sababiya fa yaxdusa fa sabab soosu yaxdusa muy sosu alxadabu mer léegi balaa ngay jàll boo xoolee charx bi indi na ca biir benn bayit muy shaahidu sabab ak labat أفنى الزمان حلوباتي وما جمعت كفاية من سبد الأيام واللبد أفنى جعلنا الزمان جمعنا ولو مجازة ويالله ما يجعل حلوباتي سما جليني رب وما أغلب لو قمنا جمع بول دجل ونكو كفاية سما نارتين خلب لو معمون من سبد الأيام كي كواري سني واللبد أكسوفي سني أنا ci ألزم du ma ma am jele ko nga continuer fa yakun dem dana nek ghadha di merro merloo moy mooy mer wal kaazimiin al xayda wal aafiina an al nas ghadha ha moy merlo nako tawakhumha ak def defeem ak ndortom lu degeerul anna banani ne samay baaraam taktasibu moy faggu bin nazmi ci nos bu dee dafa yaakaaru ne samay baram lay liggéeyee دي نوص اي ورخ نقمنا فهو الذي سارت الرفاق الى كعبته تستحصها الندب ما المكر بالمحسنات من خلقي وفلو عجل جواب الشارك او انني ولما كمان عز بنا قنين عظمت دوغنا قدبتها اغلبتا زعرفت تارلنا قولي وحسما لينجع نجرقنا خجو الارب حاجر هو الذي ما ينجنت يا لم يقن سارت دعنا الرفاق عند دويا الى كعبتي جمت كابام تستحسها مرمم دالن فني النجوب تاني فوق جلن يا ما ينجنت يا لم يقن دوح جمت كابام ما المكر ديت فع بالمحصنات تجيين نسانيونا من خلقي بوك سميجكو ولا شعري بوكلتي سما شعر كما نجيب لاي التنويه لنتل والكذب النرف أو أنني إذ عزمت قبضتها زعرفت زعرف زعرف زعرف القول غرورا mooy rafetal wax doonte wax ja du lu wér du lu dëggu waaye boroom rafetal na ko ba ku ko dégg mën naa am nga nangu ko zaxrafa mooy mbir moo xam ne doonte biir ga amul solo waaye xaw ga moom da nga koo taaral ba ku ko gis rek tabarakallah bu yaakaare ne ba ma ko bëggee labat noonu laa def taaral sama wax li yem jaxa ngir faju al arabu maa ngi gën yàlla mi nga xam ne saarat dox na arrivaqu ànd xam nga amul ci benn jamono boo xam ne nit ni mas nañoo aadoo di jóg di xaji ñoom kenn par kenn xaaliban kuy jóg di xaji ay groupe par mbooloo ñooy ànd moo tax saarat arrivaqu ànd ila kaabati tastaxifuha an nujubu an nujub mooy jamu najiba gëlëm goo xam ne tànneef la maa ngi gën yàlla moom mal makru bil muxsanaat المحصن في صيغه دي اسمه مفعول لا وهي معنى دي اسم فاعل لا وطن نقول كري جيجين نو سانيو نين لولو دي لن فعل من خلقي بوكل سانوي ديكو ما جي موي ماو جي نخ حجاز لا داي داق دي جف جيسي لايف ما المكر بالمحصنات من خلقي ولا شعري بوكل جسم الشعر chiaar luxootan li muy tekki mooy njiit laay yére bi nga sol ci biir sol beneen yére teg ci kawam loolu mooy chiaar waaye bu ko arab waxee maanaa bi ci jublu day safaanoog maanaa mi dëgg-dëgg te chiaar mooy ab slogan mbir moo xam ne mandarga la mu ñu xàmmee mbooloo sàngam wala aw nit sàngam lañ leen di xàmmee seen mandarga ma moo xam ab drapeau la wala baat yu ñuy wax la wala lu ñuy bind wala xeetu colin la loola mooy seen chiaar lolu lu sëf lay doon te baat bi ci xaar li ñu firi moy yére bi nga jital ci biir bokul ci sama shaar ak tamwiihu lëntal wal kadibu ak nar wala yadi du caagin sama loxo mus nashatu fasma ni ta ajeef biha ci mom illa mawadil yara'i ludul dul wéyal xalima ya wal kutubu ak en diru ma sofu magat sama loxo mustaqan lu dul téye xalima di bind ak di jàng al yaraaxu mooy jamu yaraaxatun al yaraaxatu mooy musabbi bal li fi ne fikrat yi sama xalaat tanzimu moo daan nos al xalaida ràngal ya sama xalaat tey laa daan jëfandikoo di rabbu xasida ak i xutba yu taaru ba mel ne ay caq wurus loolu laa jubloon wax al xalaid mooy jamu xilaada mooy li nit ki takkaayoo moo xam mu bàyyi ko ci wurus laa kaf yi waxuma sama tenk wa chaar yi sama way al manzumu mooy lañu nos li may wax ne moom laay nose mooy sama way waaye la suqubu du caqi wurus ya du caq wurus suqub jamu la ci saqaat caq boo xam ne dañ koy takkal xale ci doq te xaaliban dañ koy liggéey ci wurus فهذه لي الحرفة موي نكتما المشار بدي بن جنجو إلى ما جمت لنا خمنا كنت نكونا أحوي دلق على البهات موم وأجتلب موي بجي بماي وحم تما نكتما ما يجلي على البيج لا تجبلون مي وي أقضي من أتكت بي فأذن déglu لك sa nopp li sarx yi الببع نقول لك أذن bu فأذن ni كما أذن تكم نيجا دغلو أك نوب لها ولا تراقب بول فوغلو بول فوغلو كان كين بغا جانغي تي كاو بل وحكم نغا اتي بنات لاغا خا نيي جيت داي وار نغا ماندو سون ديغنت قال حارث ننا فلما احكم بم قرني ما لا نغا خا نشاده دغرل نكو واكمل ممطل ان شاده اكثر دم عطف والبتكنا القاضي ارتكب بي إلى الفتاة جمتا قلب الجيجن با بعد أن شغف جناب نمور أبقلم بالأبيات كبيدي لأن بيغا قمينة آه، أتكر دقل نوائي ببعض قلم صبرك بمن لدنو جل بيدي موريك قلم آه، شغف أمنا موين برم قلم ويلي أمبو قلبي شغف بكفارك موين دقو صبر لول بمسيس قلم ملني دنجكو موري خول بي وقال مني اما انه ندال نكلي ندير تاي ندير موي قد ثبت سعنا عند جميع الحكام فمبولم اتي كديخ وولاة الاحكام اقوي منغو اتي حكام موي جمع حاكم كي اتي جمع موي حكام وي اتي احكام نك موي جمع حكم سعنا فمبولم اتي كديخ انقراض جيل الكرام raafub maasub way tedd euh, nit ñu baax ñi daanaka dee nañ ba mooy ak raaf mooy dee dee ba wa maylul ayaami ak jengu fan yi ilal li aami way bon yi way soxor fan yi léegi ñoo jeng jëm ci ñu doye diñu rek daanaka ñoo jekku jamono wa inni naka man la iqaalu danaa njortu baax la ki sa jëkkër ji saduxan muy ku dëggu fil kalaami ci wax bari yan euh, di ko sat minal malaami ci yedd te jëkkër gi li mu wax yëpp gëm naa ko ku sat ci ay yedd la waxaa yégal ne huwa moom xad ixtarafa tudd na làkk ñàlla bel xardi bor sa bagage yam doon jaay de euh, siif waaye da da koo leb da la koo wa sarraxa biral na an il mahdi wali sell wa bayyana biral misdaqa nazmi dëggu way wi وتبين بر انه نمو معروق العظم كن سين وابي اعلى لم وعد ليرنا دجلنا بيتامي انا بيتامي دال ليرنا لو دغلا ليرنا نيت نمو كو نياكلا بودنا ابي يح دنجكو سينو ماركو بدر دكتو وتبين انه معروق العظم تبين موي بيرلونا ليرلو Euh, bu dee bayyana nag waaw mutaaddi la mooy leeral na biral na wa addiyan wa alziman tabayyana abaana baana wastabaana bayyana abaana mooy biral na baana bir na istabaana ba tey sàkku naa birlu euh, bayyana ba tey biral na ومساعد الجبتي وعبديا متعدي والزما دفا لازم وعبديا والزما تبينا ابان بان واختبان بينا كن وتبين درنا انه معروق العظم كن خير ابي يعلى واعنات المعذر صمل اجي دوغلو غانت معذر موي كي اندي غانت لو نانغو لو نيو kooku sonal ko mal amatun ak soxor la ak bon la wa xabsul mocfiri tëj aji ñàkk it ak méttal la kii leb ngir ñàkk boo bëggee mu fay bor bi nga ko da nga yokku métit da ko war a bàyyi kay mu wuti lu faye wa kitmaanul faqri nëbbu ñàkk zahaadatun dëddu àdduna la wan tidaarul faraji muñandiku wuññeeku njàqare bi sabri ànd ak muñ loolu ibaadatun jaamu yàlla la kon farjii dellul ilaa xidri ki jëm ci sab néeg mooy néeg bi nga xam ne euh, arab yi dañ fay denc seen jaam jigéen wala seen soxna duñ bëgg mu génn lu dul rek darura lu mënta ñàkk mel ne dañ ko fay nëbbu euh, moo tax ñuy wax jaariya muqaddara wala lu bari waykat arab yi di melal jigéen zaatu xidrin wala zawaatul qudur donc gis ko adabi lu bari دلو الى قدرك واعذري نغر نانغول غانتا ابا عذرك سا بروم كيرغي ابو عذري موي جيجين دي جكر دي نيك ام غور دي نيك ويت اك موم دينداك داو موي ابو عذري ها واعذري ابا عذرك ونهنه فغل فغل عن غربك ولسن نوكي وصلني ومت لقضاء ربك جنت ات صبرم نانغول دوغلو يالا ثم إنه طب نك موم أتك بي فرض دغلنا له ما نيل نم نار في الصدقات كا أزكى حصة أبكر صدقات موي جمع صدقة دي فري صرح ويكل لغة شريعة أزكى ليتري خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إنما الصدقات للفقراء يب أزكى أزكى, أزكى. ليس فيما دون قمسة أو سق صدقة كن صدقة سرع ليتني بات ورد فع بات أرب الأخضر سرع واي آه، كل لغة الشرع عموم أزك ليتني ونا ولهما مدوط لنم نار من دراهنا كدرني أزك يا قبسة أبتم قبسة مويلون كجلب كتب عرب أبتم وقال لهما من لين تعللا sungaliwu leen yéen ñaar bi haadihi al ulaalati ci bile sungali ulaala mooy dexiti am soow wala lu ñam yu mel noonu def tuuti ca kopp ba loolu mooy ulaala mooy leen lii day lu néew la waaye jëfandikoo leen ko wa tanaddayaa tooy leen bi haadihi al bulaala ci bile ak tooy tooy bulaala it kazaalika mooy desitu am ndox wasbira muñ leen yéen ñaar ala kaydi zamaani ci pexam jamono wa kaddihi ak coonaam فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فعسى من نعم قيم الله يلا أن يأتي مدك بالفتح يلا دفلن الخب أو أمر ولا من عند أمر من عنده متكي فموم فنهضا نبور نيوم نار والشيخ تمر موم يلنا مدني فرحة المطلق مبكتم كن بويل من الإثارة الجاب كي نجابون بيو yeewi ko boyal ko na muy bégee nee na mag mi ba muy dem noonu la bégee wa hizzatul muusiri gësamuk aji woomal baadal insaar gannaaw ñàkk waaw dafa mel ni ku woo ñàkkoon ba mu yàgg mu woomal na muy bégee كذلك مكم نون لبيجي قال الراوي قال وعن الراوي أجل نتلق ميكن حارث حارث ننا وكنت عرفت قمنا أنه نكيد الأبو زيد له كان ساعة بزغت وقتها فانكر شمسه جنتمبا ونزغت كو عرشه سحنمبا لأن بمو يكسبا وحجة تامبل رك لا تلا خمنا كي أبو زيد لا كي أي كعاي كي تبقى لنا كواي لن وحدر غيرك ورا وكنت نكونا عرفت بقم أنه أبو زيد ساعة بزغت شمسه ونزغت ونزغت عرفه عرفه مي صعما آه، وكبت قوانا أفع دي لرا قوانا وحضح نكيدي آه، لمي وحمتنا سيدا وكبت قوانا أفع دي لرا عن افتنانه كأكبري أي فنم وإثمار أفنانه أدمنك أي تتبان قادم asmaan mooy jamu fanan mooy catub bànqaas tuut maay leen kii dal ku doy waar la koo xam ne fu mu dem rek dana fa jëlee dara mel ni garab yi nga xam ne cati bànqaas yëpp a meññ fu mu koo laal rek am dara summa ashfaqtu topp ma ragal min usuril qaadi ci yërug yërug attikat bi ala buxtaani ci duram wa taswiqi lisaanihi ak taaral lammeñam mujj gi ma ragal ne bu ma waxee loolu àttekat bi dana xam ne kii ci ay pexe la nekk day rafetal ay waxam waaye li muy wax ak li muy coow dara amu ci du ko jox dara fala yaraadu gis ànda arfaani fa aqamam an yurashihahu mu ràngal ko mu tarshih ko li ixsaanihi ñel ak rafetalam looloo tax fa axjamtu ma deltu gannaaw an il qawli walis waxja ixjaam al murtaabi deltu gannaaw aji sikk sàkk wala kuñ sikk sàkk loo murtaab nanguna ismu faala ismu maful fiiqa yi duñu wute nana lañ dana ma deltu gannaaw kam deltu gannaaw ak aji sikk sàkk wa tawaytu ma lem zikrahu ak tuddam ka tay sijili kam lemuk malaakama lil kitaabi ñeel téré ba ak sijil dañu wax ne turu benn malaaka la am na ñu ko wax yeneen wax am na ñu ne déedéet sijil mooy kayit gu ñu bind kayit yi nga xam ne bind nañ ko ba nopp kon ka tay sijili kem lamuk كيد للكتاب كيد من لما أنب من لمه إلا أني لدول لك من قلت وعنا بعد ما فصل جناب تخلق ولا جناب دمه ووصل ميج إلى ما وصل جمت فميج لا أه لو أن لنا لو أن لنا كيب أمون من قو خمنا ينطلق بنا بوي في أثره تجاع لا لأتانا بنا ندك بفصل قبره تأدي ور قبارم bu amoon ko ñu ko toppal day ah, danañ am ay xabaar yu wóor ci moom wa ak bima ci loo xam ne yun charu def na ko wisaare min xebarihi ci daaminam waaw lim taaraloon ba mel ni luñ daamine daal eh, bu ñu amoon ko ñu ko toppal danañ ci indil ay xabaar yu wóor leer wa bima yun charu min xebarihi xebar yi mooy daaminam mi ngi ci jublu waxin yu mu doon wax sago yi taaru ba mel ne luñ daamina fa atbaahu topploo ko alqaadi attekat bi ahada umanaihi kenn ci ay secrétaire am umana mooy jamu amin wa amarahu mu digal ko bit tajassusi ak rejo encen secret wu an ambaihi walis ay xabaaram am kum wax mu toppi ko wuti ay xabaar ci moom kooko dem fama labisa saxut an rajaa mu dellu diir bu yàggul dara rek mu dellu si mutadahdihan di aji bërëy moom di aji dox doxin nu gaaw mel xeer wiñ tek te kaw ci montagne ba bàyyi muy bëri mu di wàcc namuy muy lolu moy at tadakhdu moy mooy doxin wu gaaw rek mel ni kuy bëri mu di ñow wa qahqara mu aliyar mu qahqihan di aji xaqtaay al qahqaratu moy aliyar dox jëm sa gannaaw qaxqaratu nak xam nga ko mooy xaqtaay reeju ànd kàddu gu kawe فقال له القاضي أتك النواو مهيما لقو مهيما لقو يا أبا مريم أبو مريم آه، بنكو عي كناية له كناية عن القاضي وقال أبو عارف بدي يقول القاضي ولا نسست موم ديكو جابله فقال منكو من دي لقد عاينتو جكار لنا عجبا كنتا عاين يعني رأيت بالعين لقد عاينتو ما يجسنا سمو جاكار لونا اك عجبا كنتان وسمعت ما ديغ ما لو خمنا انشا صفنا لي نيل ما طربا اك سيغري قال له اتكن واو ما ذا رايت انا لو غيس وما الذي انا لم ولا خمنا وايت واتونغو فقال من لم يذل دنيو الشيخ مغني موز قرج ديرو جننا يصفق دي تاتو بيديه اك نيار لوم ويقالف مي بين رجليه ديغنت نيار تانك من ko magmi dal bin genné la commencé di di la ñaari tank manam di fecci wa yugarridu muy way bi mil shidqayhi lu fees ñaari kaabaabam ñaari wàlli gémmiñam di way da génn rek ma di takko ko fecci ak di way di wax li nan kittu qawna usla di jaar lef ma bi baliya ci am natt ci am musiba tuti ma ci musiba min waqaaxin ngir jigéen ju ñàkk kersa shamariya ko wagu koo xam ne lu mu xas soobu kenn mënu ko delloo gannaaw ashamariyu fil amri mooy koo xam ne ku dogu ku wéy ci mbir bu dee jigéen ashamariya wa azuru tuuti ma ziyaara a signa ka kittu azuru signa lawla xaakimul iskandariya bu duutoo nag attikatum iskandariya bu baax bi nee na lii moo ma reeloo moo ma yéem fa daxik alqaadi qaadi bi daal di ree xatta hawat ba rot na hawa yaxwi ma saqata bu ko jaawalee hawi ya sopp na yaxwa dana sopp xatta hawat ba rot daniyatuhu mbaxanaam ma daniya mbaxana mooy mbaxanaam attikat bi mbaxana bu gudd xaasatan lil xubaab wa dawat lax sakinatuhu ak dalam dal gi mu doon a am comme attikat ba nit ñi mën koo wekk loolu mujj na dañ ci moom njërëree yu bëri gannaaw gi nag ma fa bam delloo ilal waqaari jëm ci wegu wa xaqaba mu tofal al istiraada kekku istiraab mooy reeba kekku reeju kawe ju jéggi dayo bil istixfaari ci astaxfirullah bam noppee mu wax astaxfirullah qaala la wax ne allahumma yow yàlla allahumma yow yàlla xam nga miim gi daa wecc xarfu na daa waxoon nañ ko ci njëlbeen bi li fi nekkoon mooy yaa allahu yaa boobu lañ indi soppe ko miim ci mujjug baat bi mu wecc yaaman azam waaw kay bi xormati ibadati ci xormaay sa jaam ñi almuqarrabin ñari ñun jegeel xarrim yàlla na nga xaraamal xabsi sama tëj na alal mutaaddibiina ci borom xam-xami adab yi su ma xaal topp mu waxaat li dalika al amine ñeel secrétaire am booba ne ko alaya bii indil ma ko kooko dem seetu ko fantalaxa mu boy mu jiddan di aji farlu fi talabihi ci sàkkoom ثم عاد طف مدلوه بعد لئيه جناو أبديرم جناو أبدير اللئي لئيا بلئي ما حملنا غلامنا شيء من القيد جناو أبدير مدلوه مقبرا بعد قبار بنئيه تكسرم نكو كسر من مغضب فقال له القاضي قاضي نبا أما إنه دالنا موم دي لو حضر بوتيون لكو في فقلت الحضر وقت لكو li mu mooy ku ko tëj danaa ko fegal euh, summa la aw topp danaa ko méngale maa loo xam ne foofu moom aw laa moo gën a mayaat leneen lu mu gën lu gën la ma ko njëkkoon may wala araytuhu danaa ko wan anna al axirata ne may gu mujj gi lahu min al ula moo koy gënal bu njëkk mooy gën ci bu njëkk hammaam nee falammaa raaytu ba ma gisee saawal qaadi jeng xolub attekat شعب ما جانغ خول آه؟ آه، ولتفقى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا بما جزينا أتكد يقولم جنجنا جمكي أبو زيد وفوت ثمرة تنبيه أفات من يتم يأتي عليكم تعمل في بما جزينا كيد يأتنا دي دي معه يأتي دو أم بنا جرن دو أم من غشي يبني دكال نما دكال نما كيوات جنة مورما ندامة الفرزدق رج فرزدق غشية فغشيهم من اليم ما غشيهم مريتكم شاعر بن وح فرزدق فرزدق بنا ويكد لون تجمون يتابع عينيه قمقو مو جرير أدور ترمبا سعمانك نوار دوني بايت عمبا تنبغون بمكو فغي دي ريتو ويكي لبري بوكنا كباي دينو اندي في ندمت الندامة القصعي لما غدت مني مطلقة النوار وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أعرجه الضرار ولو أني ملكت يدي وأمري لكان علي للقدر القيار أنا ما يريد ريت كملني ريت كسعي كان لما غدت بقي النوار مطلقة ديكو فخر مني جمال moom mi nga xam ne moo doonoon sama aljanna ma génn ca comme aadama bi ko iblis génnee aljana ne bu fekkoon ne maa moom sama loxol bopp sama mbiram bopp day kon danaa tànn lil qad euh, danaa am ak xiyaar ak tànn lil qadri ñeel dogal bi du ma tàqalikoo ak moom waaw euh, léegi nag nee na man réccu naa réccu gu mel ni réccu faradaq gii ba mu fasee soxnaam xiina abaana mi ngi noonu jamono ba mu fasee fatem bàyyi an nawaar soxnaam soosu di nawaar wal kusan yi ak réccu kusan yi la mastabaana ba biree annahaaru ba cëgg kusan yi euh, moom mooy Aamir ibn xaaris dañ koy askan ci giram googu ab sàmmloon dem ca àll ba defar ay xalaam defar banti ferte ya ba noppee nag maanaam dajaa sonn lool liggéey ba guddi bi noppee di ko échangé fekk boobu lëndëm na ba mu tiree bal bi jub lool jam nam ko bëgge woon ba fëll ci ganaaw dal ci benn bët waaye mu yaakaar na daa mooy mu essewaat beneen mu defaat noonu ba juróomi bal yi jeex mu jàpp ne kon li mu doon defar daal fett ji baaxul amul ci lam bëgg ndax yi mu sànni yëpp a ngi mooy mu dammate ko sànni waaye ba xëyee nga xam ne leer na léegi ci la door a gis ne ndekete daal fett gi baax gi foo ko takk weesu na ko da doon jama jam ba dugg ci biir la muy jam génn jàll mu rëcc nag lu tax yàq ko ci guddi ga ak na mu sonne woon mu baaxee ni ay wayam wax lu bare bare moo tax udabaaw yi di wax rëccu ku saan yi la mastabaana ba mu biree an naharu bëccëg